kaddu yi day ginnaaw ma leen nuyoo pare yéen mbooloo mi ak gan yi ñu dalal jàmm di am mbégte kontaan bu baax si seet gi ñu seet si ah di jiital si nuyoo bi monsieur le préfet ak gars yi mu àndal nga xam ne ñooy wàllu for projet bi demee ne Abdou jaw ay Mansour aussi ak Demba ah, lii nag lu yàggoon a bëgg am ko ah tey kon suñ mbégte moom am na commencement mais amul yemukaay ah ginnaaw bi ñu leen nuyoo pare leen daal jàmm si Ndoka mooy Ndoka 2 lii ngeen seet si nii tey di wàllu projet bi doon mbayu noor ak nawet ah doon lu ñu bëgg a bëgg te nañ ko daaw mais gis nañ suñu bopp moom bu baax a baax di ñaanal nag ah, ñu ko xam ne ñoo ko doxoo mu ñëw ba fii yàlla gën leen a yokk ba ñëpp man see am ndax liggéey bi moom commencé ah, commencé nañ ko waaye dafuñ ko pour Ndoka rek dafuñ ko pour commune Touba Mboul tamit dañ ko def pour département bi. moom lañ am yéene ci noonu pour liggéey fi nii. loolu mbéy nag euh, suñ première campagne day soog a teer nii béyoon nañ fi euh, basante béy nañ fi kanja ak même bisaab si noor bi béy nañ ko fi même pata euh, sax defoon nañ ko fi waaw mais lépp moom réussir na daal. delloo sama yóbban si su préfet rek nga xam ne moom moo fi teewle ta ah fii moom ñu bëgg a liggéey lañ ndax ah gis nga teene bi ni mu demee yaatu na collecté nañ deux hectares. te ba 10 hectare sax mën nañu ko collecter ndax teen bi mën na koo yor teen bi am na ndox toujours waaw te bëgg nañ tamit ndaw yi nga xam nañ ñoo fi nekk ah bëgguñu ti pour dem ne dañuy liggéey fenn ndax bari ñu fi ñoo xam ne di ko liggéey si àll bi am nañ ko fii waaw ñàkk manque eh, doole gi nag ah, moo waral benn benn yi di génnaat pour dem liggéey mais buñ ko amoon ah état gëstuñu bu baax kon ñun suñuy ndaw moom ak ndaw yi fi jege di commune beeg arrondissement bi yëpp dañuy mën am ay emplois foofu waaw ndax terrain bi mën na ko ndox mi mën na ko waaw ah, góor ak jigéen la ah, góor ak jigéen ñëpp la ndax ku ci nekk ah yaa ngi ci taxawaay taxawaay boo xam ne daal bu am yéene la directement jigéen ñi tamit wax di ñu am pas-pas lañ ci affaire bi trop góor ñi tamit noonu waaw sawar nañ ci liggéey ko lool waaw te ko yàgg bëgg ndax dañoo waroon teen fii parce que am na fi ay at yoo xam ne kenn utilisé wu ko ndox mi tëdd fii rek. biñ demee ba ñoo association bi Jawre dox si ba lii génn doon na loo xam ne loo xam ne luñ bëgg la moo tax. Euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar kilifa gi di ko dalal su préfet di sant lool di am mbégte nag ci disponibilité ak taxawaayam ak euh, ñàkk ñàkk a tànqam lu gum ñàkk a tànqam lu population yi ndax du taxawaayam waaye mi ngi nii lépp lu mu yëg ci population d'arrondissement Kayal mi ngi ciy def kéem tolluwaay kattanam. ñu di ko ci jaajëfal bu baax a baax di wax ne lii nag ñi ngi ko créé ñi ngi ko commencé woon 2019 euh, lañ commencé association développement de jawre ci lëkkaloom ak euh, euh, coopération Activa bi nekk Espagne te ay yi jawre rek jiite ko nekk ko yor ko fa ci ndimbalul mairie bu Tarragona si lañ taxawal lii appui bu ñu mairie de Tarragona doon appui doon ko dimbalee coopération bi ñu jàppale association développement Diawré ci lañ taxawal projet d' agriculture bu toll nii taxawal ci tool boo xam ne collecturé nañ fi plus de deux hectares defar fi ndox mi di ñëw normal am nañ teen boo xam ne mi ngi xelli ndox mu doy nit ñi di si liggéey ñu liggéey ko encore sew ture gis ngeen image yi léegi ak liggéey ba fa nekk loolu bu association développement de Diaouré mane taxawaayu euh, coopération Activa ak ndimbalu mairie de Tarragona si lañ ko amee ñu di ci sàkku nag ndimbalu état Sénégal mu def ci ndimbalam ñu di ko dénk kilifa gi fi teewal nguur gi mu jàppale ñu ci nguur gi ñu gën ñoo jàppale ci wàllu semence bi ci wàllu engrais bi ñu war a def si tool yi parce que engrais bi ñu am di ko am par nawet su jeexee comme dañuy continuer ñun di bay noor dañuy bëgg ku ñu jàppale ci engrais bu ñu mën a def ci mbayum noor mi. Ah, di di di nuyu nouveau ministre bu bees bi di am yaakaar ci moom lool nag ndax dégg nañ ne moom baykat la sax defe naa dana bàyyi xel baykat yi ñu di ko tàllal loxo rek mu gën ñoo jàppale ci nuñ def ba développer suñu gox ndax ñun daanaka ñun ñu ngi ci yoon wi mu teg ñu loxo rek lañ bëgg dimbale ñu ci wàllu semence boobu ma doon tudd. engrais bi ak urée bi parce que moment yi jënd ko mënatuñ ko daanaka ndax cher ndax gis ko ci marché bi sax yombut bu nu jàppandalee bañ man cee jot nag dina tax li ñuy def gën a mën a jëm ci kanam. am nañ ci yaakaar am nañ yaakaar ne fii ak weer yu néew incha allah ñu amee ndimbal tuuti rek danañ mën a gérer loolu ndax euh, bi ñu créer bi ñu créer euh, jàngat bi ñu waroon a def pour mën a installer lii bi ñu amee financement bi ba def jàngat bi ba pare dañoo installé woon ay CIE amoon nañ huit CIE huit CIE yooyu ci lañ créé woon benn société coopérative société coopérative bi demoon na ci plus de cinq cent membre biñ ñëwee ba deux mille ba ba deux mille vingt deux ci lañ doog a waat yeneen euh, yeneen CIE yeneen dix CIE yoo xam ne génn na commune Touba Mboul boole woon nañ ci commune u Ndioumane gën koo yaatal CIE yooyu biñ ko installé ba pare société coopérative bi yokkaat na dooleeku na ba actuellement mi ngi ci plus de mille personnes yoo xam ne abonné abonné nañ ci société coopérative te ñooñu ñëpp mbootaay la ñuy wo yoo xam ne pour liggéey développer suñu gox loolu rek moo ñu yëkkati li ñu bëgg mooy euh, région de Diourbel ak lu ko room lépp lu ñu soxla ci wàllu lujum ak lu ñu soxla ci wàllu lu ñu ñu jëfandikoo ñu di ko jël si wut si fii ci suñu village yi. parce que suuf si mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi euh, kattan lu ko defit mi ngi fi ay ndaw yu ko def ñi ngi fi. waaw ok. ëllëg li moom mooy topp ci ñi jiitu rek ah ndax li nu ñii liñ fi fekkoon mag ñi yor ko fi loolu lañ continuer ferme bii nag day loo xam ne ci départ lañ ne ah saison bi ñu terminé bay nañ fi basante bay fi kànja comme ni ko chef de village waxee bisaab te it intérêt bi dëgg dëgg dëgg mooy jigéen ñi koy béy di ko toppatoo ñoo koy jël commercialiser ko ci marché yi muy ñaari rentabilité yoo xam ne yi day dellusiwaat ci askan wi. dañ koy bay am ci seen bénéfice ci mbéy mi ba pare dem jaay ko récupérer waat foofa seen bénéfice am ci loo xam ne ci biir kër yi lañ koy delloo ndax ku ne xam na ne situation mondiale bi ñu nekkee kër yi loxo yëpp a ciy dem surtout soxna yi suñ soxna yii nag ñun euh, wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ yoo xam ne yii dama leen di encourager di leen féliciter ah may lance appel nag di ko yóbbante monsieur le sous-préfet ci monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'agriculture et de l'équipement rural mu bàyyi ñu xel bu baax ndax xam nañ ne béykat la comme ni ko sëñ Mansour waxee jàppale ñu ci engrais ak matériel agricole ndax lii ñun ay liggéeykat lañ béy dong lañ xam ci lañ juddu yaru ci di lance appel aussi jaarale ko ci monsieur le sous-préfet Serigne mbay Thiam ministre de l'eau et de la l'assainissement sunu teen bii bu ñu demoon ba am def ko mu doon puits forage danañu arranger ndox mi mën a tasaaroo ba kenn ku ne tool bi à part tool bi ñu mën a am ci suñu ginnaaw kër yi ci wanag yi mën faa def ay mbéy yoo xam ne yu mel nii lay doon yu demee nii te yooyu ay rentabilité lay yokk yoo xam ne te ku ne xam na ne état bi dafa surcharge waaye nag du te doléance moom mënta ñàkk waaw monsieur le sous-préfet ñu ngi lay xamal ne la nous sommes fiers de l'état du Sénégal waaw parce que état bàyyiwuñu école yaa nga ne grenier ngi nii boo xam ne agriculture moo ñu ko jox ñu di ci développe ci temps yi Covid bi sax dañ cee def loo xam ne soutenir famille benn problème amu ci jigéen ñi jox leen fi ay financement mbale tey dem na ci ay millions te cent cinquante mille la déparé woon kon courant baa ngi nii wax dëgg yàlla état du Sénégal dañuy ñaan mu dolli de waaye ñun de sikkuñu ko ñu ngi koy sant nag di ko jaarale ci yow parce que yow 38 département ngay représenté fii ci arrondissement Kayel 38 ministères yoo xam ne yii lépp seen kaddu yaa ko yor fii ci arrondissement Kayel ministère bu ne lu ñu fay jàmbat ci yow lañ koy jaarale yaay transmettre préfet mu jaar ci gouverneur jàll kon sous préfet ñoo yor liggéey bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nag yan boobu la chef de leta woolu ba yan la ko fi nga ko bëgg a àggale yàlla na ko fa àggale fu kawe njor na ngeen xam ne daal kontaan nañ beg nañ jawre kuta nag mënuñ leen a fay ah jàmbaar yi sëñ Mansour mi sëñ Abdou Diaw ak Demba Kuta mënuñ leen a fay ndax ki am ay intérêt jëlee ko ci àll ba ñëw xelam daj la mu ñëw indil la ko wax dëgg yàlla mënoo koo fay ah Muntaxa mi aussi seen collaborateur la nekk ci nekk suñu diggante di dem ko moom it ñu koy sant ndax ndaw la mi ngi dem di ñëw waaw yooyu yooyu yëpp daal yàlla na jëm kanam bu baax rek sant nañ bu baax waaw. aman nañ tam xam-xam bi tam mais yàlla moo dogalal mm, mm, mbay maraîchage mënoo koo def ci amoo ndox. loolu moo ñu tardeeloon boobu ba léegi bi nga xamee si coopérative bi kii euh, Abdou Koto ñoom ñii ñëw nañ fa jàppale ñu ci euh, projet bi ba génneel ñu ndox lañu commencé mbay mi mbay mi tam biñ ko commencé euh, commencé nañ cee gis suñu bopp parce que am na première tranche boo xam ni bay nañ ko ba dem na muy lu ci demee ni am na kanja ñor na première bi basante ñor na fa kaani salade ñor na fa jaxote ñor na fa ak tamaate même kii mboq ñor na fa tam boobu yëpp da euh, yàlla dogal na première tranche bi jeex na deuxième bi tam actuellement fii nii nii jaar ngeen fa gis ngeen tamaate bi gis ngeen fa jaxote bi euh, même pataas bi gis ngeen ko yooyu yëpp ñor na kaani salade bi aussi ñor na. ñun waa Sèye moom sunu borom daf cee dogal am nañ ci chance boo xam ne xaj na sax ñu bari amuñu ko ci woon mën naa ne ñun li ñu récolté ah am na ci tamaate boo xam ne tey tey tey tey euh, tey jii nii fii nii dem dem na Dakar. parce que am na ñu ko dégg xamal woo ma ne ma dégg naa da ngeen tamaate ma ko waa am nañ tamaate mu ne fu toll fi ni ñu ne ko ngi koy jaay kaset 15 mille mu commandé ma ci kaset ba yàlla dogal na loolu moom yàlla dogal na tey ji dem na Dakar xam nga kooku loolu mbégte la aussi itam suñu tamaate toujours mi ngi dem Touba mi ngi dem Dar Salaam Kamadou gi mi ngi dem Njenn ak Tiib même joxote bi noonu basante bi noonu kanja bi noonu dëkk yi ñu wër yëpp ñu ngi ñëw foofu di ko jënd si. émission bi depuis 2014 mi ngi doon am ay relation ak partenaires yi. mooy coopération Activa ñuy ak euh, mairie de Tarragona ñu doon ñu jàppale ci wàllu santé gannaaw nag lañ doog ñëw ci wàllu mbay mi depuis 2019 créer ay GIE euh, créer coopérative defar fi ñaari ferme agricole boo xam ne Seew Touré lañ ko def di bay ak euh, Ndoka 2 def benn ferme élevage boo xam ne mi ngi Ndooyeen ak bu ñu war a def Toubamboul loolu nag ñu ngi ci ànd ak ak euh, agriculture bu Mbàkke monsieur Badiane xaj na waroon na teew fii sax ñu ngi koy saluer au passage di ko jaajëfal bu baax a baax nag jàpp na ci bu baax ci wàllu jiw wi ci jiwu maraîchage ci jiwu euh, gerte bi jiwu dugub bi yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey ak euh, agriculture bu Mbàkke ñu ngi ci ñu ngi ciy jàppale bu baax a baax defar nañ ay GIE huit GIE defaraat nañ yeneen dix te liñ bëgg mooy bëgg nañ commune de Touba Mboul wala boog euh, district de Kayel yëpp ñu occupé ko ci ci ay projet projet yi nag ñu ngi ci wàllu mbay ak sàmm bëgg nañ tamit dëkk bu ne am wàllum am mbay am sàmm comme ni ñu defee ndooka euh, mbay bi bëgg nañ fi tamit defaat sàmm comme ni ñu defee ndooyeen sàmm bi bëgg nañ fa tamit def bay mu wër commune de Touba Mboul wala district de Kayel yëpp ñu ñu def fa loolu ak partenaires yi nga xam ne ñoom ñu ñoo ñu dimbale surtout mairie de di kontaan ci ñëw bi ñu ñëw déplacé wu fii ci visiter ndax suñu sañoon suñu déplacement yi ci ëpp déplacement yu mel nii lay doon parce que day dugg ci principalement ci cadre développement parce que tey boo ñëwee di visiter ñaari périmètre maraîcher muy benn bi di Ndocade bi ñu nekk ak fa la ñu jóge muy sew seew Touré nga xool ko muy ay tool yu rafet yu naat yoo xam te ni dëgg-dëgg ay jigéen ay mag ay xale yu góor ñu fa taxaw di daan seen doole loolu mënuñu def lu rafetlu ko di ci kontaan di encourager aussi ñu ci nekk. loolu boo gisee ñu ñëw loolu benn parti bi ëpp importance ci la bokk parce que bu nu ñëw rek visiter rek xool dem bu nu ñëwee visiter xool dina leen encourager déglu leen ñu wax ñu seeni doléance ñun itam comme li ko kii waxee ñoo fi teewal tous les ministres du gouvernement ministre bu ci am wàll bu ne ñu itam ñu àggee ko say service jaarale ko ci par la voie hiérarchique loolu nag ni muy demee mooy ñii bi nu ñëwee wax nañu ni problème mu engrais la ñu am maanaam engrais bi cher na urée bi cher na semence bi aussi léeg ñu am ci ay jafe-jafe ndox aussi dégg nañu di ko jàmbat surtout fa la ñu jógee Sewa Touré nee nañ ñoom bu nu amoon ndox dina baax fii tam nee nañu seen teel bi am na doole mais buñ ko defoon puits forage bu mag dina ci gën a baax loolu dégg nañu may doléance te fës nañu yéene incha allahu rabbi nu mu gën a gaaw àggee ko suñu kilifa yu nu féete ci kaw ci nguur gi te gëm naa ni danañ ci def lu ñu man ndax Sénégal moo fa moo fa tollu Sénégal moo ko laaj actuellement ni boo xoolee le président du le le la politique du président Macky son excellence mooy nañ fexe ba le PAP 2A bi muy wax dans le cadre du Sénégal émergent mbay mi ak sàmm gi ak ak ak ak le volet économique dara ëpp ko ci doole. ba tax na lii ko xoolee programme la boo xam ne nii mënuñu see bañ a ñàkk jàpp xanaa bañ a yëg mais wala jàpp te matul mais mënuñu see bañ a ñàkk jàpp. parce que programme la boo xam ni day téye jeunesse bi seen dëkk déjà exode rural da koy xeex bi ci des mooy fun ko am dana tax ba waa dëkk ba am seen auto suffisance alimentaire dana mën a lekk légumes yu baax légumes yu frais bi ci des mooy dana mën a soqali seen koom-koomu dëkk donc loolu. projet la boo xam ne ni bon mën naa wax ne un projet transversal la li mu ëmb dafa bari donc loolu dëkk bu mu am état war na ca mën a taxaw jàpp ca ba ñëpp xam ne état jàpp na ci. te it comme ni ngeen ko bëggee ni ngeen ko waxee man day danaa yóbbu sama kàddu samay kilifa ba ñu yëg ko xam li fi xew incha allahu rabbi partenariat bi public privé wala partenariat voilà c'est ça ñoom bi ñu def ak euh, la mairie de taragona partenariat boobu ñu ngi encourager la mairie de Tarragona xam leen ni leen li ngeen joxe lu ñu joxe ak fonds yi ne appuyé demul ci naax saay def nañ ko fan ko war a defee nag dans l' intérêt de la communauté ñu ngi leen lancer un appel que ñu ñëwaat fortement ñu gën ci jàpp gën a gën a yokk les fonds ba au moins projet bi gën a mën a jëm kanam gën a mën a taxaw vraiment développement bi gën a fulgurant loolu lañ ko bëggee donc waa Tarragona ñu ngi leen di rassurer xam ne ñun xam ne ñun vraiment euh, ñun en tant que autorité administrative danañ ko xool ak bët danañ leen accompagner ensuite danañ leen danañ leen gunge bu baax a baax incha allah rabbi c'est ça merci.